jamono joo xam ne dañu am ay organisme lu ñu mel ni banque mondiale ak FMI ñoo xam ne donc buñ la lebelee xaalis dañ lay wax li nga war a def seen xaalis yow doo def lu la neex boo ko bëggee def lu la neex duñ la lebal yow bu fekkee ne soxla nga vraiment ñu lebal la parce que askan bi ñu ngi dal sa kaw tu es obligé nga def luñ la laaj. def luñ la laaj dañuy léegi suñu dëkk yi subvention yi dafa bari nañ ko génnee. loolu moo tax ñu wàññi subvention bu amoon ci ci essence yi subvention yi ñu doon jox yëpp ñu génne ko donc subvention bi dem na lu mat ay 6 milliards et poussière léegi pour ñoom subvention yooyu moom moo indi déficit yenn yi donc ce qui fekk bu ñu lay lebal xaalis conditionnalité lay nekk boo ko defee ñu ñu suñu ñu labal la boo ko deful du duñ la labal loolu moom mooy problème bi yëpp